ko waloon woo wuyu ko tey mu wuyu moo gën mu nekk fii nii di dof-doflu si kaw nit ñi bàyyi faal yi nag comme ni ma leen waxee nu nekkee si dëkk bi nit ñi ñoo leen si bàyyi nit ñi ñoo leen si bàyyi que lu tax nit ñi bàyyi leen si loolu seen lii ñuy jaay ak seen lii nu nekkee si dëkk bi du dëgg du yoon reewaande kese la reewaande ku leen ko waxul waxu leen dëgg ku leen dëgg da leen di wax dëgg reewaande dong la nekkee ci dëkk bi xamadi xamadi la nekkee ci dëkk bi emmerde nit ñi retard ñu bëgg liggéey ak ñu bëgg def dara rekk leen fi nekkee fëggay pot tëggi sabar fecci tëggi weñ tàllal loxo ñaan jël ay bant dóoru mbëkk ay tibb saaga nit ñi reewantalu daara lu baax defuñu ko si dëkk bi daara lu baax waa loolu du leen koy wax te foog nu xamee ko noonu parce que lu tax looloo am seen cant yi tànnuñu benn heure pour def ko xaaju guddi rek leen taamu journée bi yëpp vingt quatre heures vingt quatre heures xaaju guddi leen taamu pour cant ko ba fajar neen nit ñi di nelaw xoolu nu àll dama nu def ko fet si kaw nopp nit ñi la ñuy ñëw fëgg ko ba di fecc non nee naa le balaa ma jéppi rek après cant soo rombee sa koñ xam ni ko fii cant fi amoon saw te xetu café Touba ak saw ñoom ñaar suñu booloo xet bu bonongoo comme amoon ñaar xet bu bon café Touba seggit bi yàlla bu gaa seggit bi ak fënnaxit bi ak kii bi ak sawit xeet bu garaaw la lay jo xeet bu bonongo day mel ni gis nga gars yi di defar tali suñu defaree tali bi ba lal goudron bu tàng bi gis nga xet boobu noonu muy boobu noonu lay lay bàyyi fa restaurant wu capitaine yi si angle yeeg le vieux yi valmerance yi bul comprendre xottukaas yi nag azote yi non bul comprendre miiru jàmbur yi bu nekk nu rëdd ko su amee miir yoo xam ne nag dund nañ sant leen gars yi di neen di dóor fii mbëkk fii teg fi soo jugee nii xasaate foo gis mu am jal rek soo xoolee angle bi yëpp ay karaadoo fajar salaatul xayru minal naw mi gars yi nekk di xolol imaam wootale kaa leen julli kaa leen julli ñoom ñoo ngi xolol di yaataa yumbi suy naaj di génn déggul ma foofu la ñuy ndékki laax lekk ay mbaxal kii nit ñi xëy di liggéey ñoom ñu waa bàyyi faa xalal salaamatan daay matan waaw faal waaw waaw cant poté woon na waaw waaw faal bàyyi faal waaw nu def noonu ilaa doxoo gaayen waaw ba ilaa waaw ba xolo ba ëllëg yow bëccëg bëccëg ndar kam ni ñaa lay romb di liggéey nga naan ko waaw ba ëllëg ban ëllëg yow yaa ngi ëllëg yow il est le soleil est là mon frère réveille-toi mais aboo mbandi gi yëpp maa xal ñoom ñoo ngi tëddi ñoom seen guddee ñoo ngi tëddi noonu nit ñaa ngi xëy wala liggéey nelawunu dara si koñ bi léegi wala romb dem arrêt nga gis gars yi wala dem arrêt ba romb la jéppi nena leen sax mais gars yi xoolal seen yoon nekku si pour ñoom ñoo rey gaynde ga de pour ñoom ñooy noonu ñoo rey gaynde ga ils sont tout contents ñoom jaamu neen yàlla si tooñ ay doomu aadama jaamu yàlla tooñ ay nit jaamu ñoom jaamu neen ñoom ñoom jaamu neen noonu de si tooñ teg ay pôle ay mille ay huit mille volts teg ko xoolal quatre points cardinaux nit ñi dañuy wala cant yi xoolal quatre koñ avancé koñ lay amee. mais yow da ngay toog sa sa koñ di dégg awo yi voilà di dégg pôl yi di sap na nga naan mais vent bi di ko pousse fu nekk wala ñoom ils sont ils sont contents ils sont contents ñoom jaamu neen yàlla noon si tooñ yàllaa leen su suñuy jaamu neen tooñ doomu waaye ils sont contents Il y a un problème y estoy Imaginez le chant y cómo hace ya no sabe 9 10 si bon. 9 10 h mara mi cómo hace en cobac 11 h minuit 1 h 2 h trois heures quatre heures cinq heures six heures sept heures sept heures et nu def ñaan wala sept heures su gaa yi jullee ba pare ki noonu nu def ñaan Baay Faal night hour neuf heures huit heures de temps loolu xoolal shift la shift xam nga lu naan shift Baay Faal loolu shift moy heure de heure de travail fi do deuk lolou heure heure de travail shift la manam xom nan la ko meuna waxe en français 8 heures de temps par jour le gars di liguey comme fini le gars di liguey nou lay fay so so 8 heures de temps overtime la moy moy heure supplémentaire chaque jour so demé ce schedule ce emploi du temps 8 heures de temps la si 8 heures de temps si biir huit heures de temps dangay am ñaari trente minutes ah fii de si ñun trente minutes repos mais ñoom non stop la ñii suñu simmee ñee jël duñ koy awu wante déggoo ma de loolu chiffre la loolu liggéey la payoor la mais ñoom duñ koy def fo neeneen foo fri pour emmerder les gens pendant que nit ñaa ngi nelaw laa lay tegal de night hour routine

8 heures de temps, Je nga def lene lu bari shift la ñi par jour fini moom la ñuy 500 000... 600 000... suñ ko convertiré quoi di ki def par semaine soo ko defee bu nekk nii teg soo nga mais il convertit cette énergie à emmerder les gens

gars yi di tëb di dal c'est pas que ay bàyyi leen c'est pas que cant yi da leen neex c'est pas que ay affaire mais c'est yi moo ngi seen biir néeg bi quoi mënunoo dalu amuñu le choix mënunoo daw mënunoo dem fenn guddi na nangu ndogal taxaw si balcon bi def nii jàkkaarloo gars yi rek xaar fajar xaar mu jeex quoi wala xool lu fa demee loolu rek. ils sont contents moo tax fa Macky ñëwee wàññi affaire yi tamit law la cat affaire yi tane woon na nag tane na waaw dañuy teg si horaire teg mbedd bi rek kii gars di siisu heure gi su rombee rek nga gis gendarmerie romb gars yi dañoo léegi da ngay dugg si gendarmerie Sénégal yeeg police su Sénégal soo xoolee su ruq yeeg fond yi lépp ay la ki ay ay ay ay talmata ki ay njaaj ay affaire ay instrument ay pôl ay orchestre damay xoolawee dama def ba passé waa dugg gendarmerie foire génn sama xol bi kii bay ree mooy waaw dugg ma si biir am ku ma doon dem seeti foofu am lu ma doon lijjati yoo doon dugg quoi mais romb couloir bi ma leen di xool couloir bi mais bàyyi ruq bi yëpp ay instrument la bàyyi tal njaaj ki yeeg i nangam pôl yeeg i nangam ma xool xalaat balaa de gars yi liggéey de am na si même instant benn gars bu ñëw pour jël si instrument am mooy oh, mooy Paul Loubet ampli am ak ay yi quarante quelque mille lañ ko daggal ticket ko ak ak bi mu dugg bureau commissaire génn te wóor na ma ni ko luñ ko loué lu mu ñëwee fay pour récupérer instrument bi moo tax saa mer ma daal ma lay doon ça c'est bon quoi su gars yi parce que dootu ko jar dootu ko jar. da ngay cant ba pare yi doo si am dara waaw léegi woon nday police wax ko léegi dama léegi c'est que souvent nekk indicateur sa baax na gars yi moo tax waa koñ yi doon indicateur man naa ngi commencé bëgg tamit indicateur koñ parce que bàyyi faal yi rek a tax gars yi doon indicateur du ëppal dunoo ëppal xamuñu bu sa yem moo tax mairie un deux trois a ñu woo ndeyu poli nga gis gars yi waay ak lu dul rëy laa mi gis nga Baye Fall lu mu bëree waay kii daal auto police rek a gis si Baye Fall balaa ngaa xam mën a daw bu gis auto police si te te te xoolal Baye Fall lu mu jàngul jàngul jàngul jàngul jàngul mën na lire police billaay wallaay Baye Fall boo teg P O L I I C E bi loolu moom. mën na koo na bañ a xam alphabet a jàng kii waaye police <laughs> billaay auto bi ak ak waxuma la sax auto police bi xàmmee de mais xam nga auto bi mbaar la ak ginnaaw te souvent mbaar bi xaw a yàgg kii nii te suy daw xam nga koñ Dakar yeeg loolu nag ak affaire yi dañ naan kii xam nga ressort yi am ci ak benn bruit bi yenn saa yi nga bi si ginnaaw def beneen grëg nan tey xam na lu may wax déggoon ma balaa moo damm koñ waaye gars dem leen de. bruit bi sax bruit bi soo oto police bi ñuy raam foog nga xàmmee ko parce que police su Dakar yi ay nante la suñu koñ bi ñuy fay lépp du ñuy raam si lëndëm bi moo tey suwaar yi balaa ngaa gis oto bi ñoo ngi sa kaw foog nga jëli so son bi su bi am na mur benn genre bruit L2 sax ko ko ko ñoom ñoo tax maire yi indicateurs yi bëgg ba bëri si dëkk bi billaay te wax na dëgg nag wax nañ dëgg de billaay wax nañ dëgg quoi yii am yooyu moom néew leen bu parce que man moom bëgguma quoi démocratie may leen ba minuit xam nga quand quand c'est des gentils petits nga xam ni que booy la kii mënul ñaa may leen ba minuit minuit c'est l'heure de se coucher waaw minuit trente rek woo leen gendarme rek police ñëpp ngeen di woowandoo ñoom ñëpp nu wàcc embuscade tas can yoo nee naa la kay su yàggee léegi booy arrêté dañuy noppale ko boobu rek mooy soo solution day fatigué day fatigué quoi léegi su ngeen bëggee cant da ngeen dem maaro loolay wax ñor na leen ay kii da ngeen dem géej da bëgg cant da ngeen di dem géej guddi gi kenn doo leen waa ngeen dem foofu ut seen projecteur ak seen i groupe xam nga ngeen dem toog foofu noonu ngeen yu kii ni xam nga yéen ak vent bi la ah, ngeen kii def seen i kii su ngeen paree du ngeen de ken fajar bi ngeen doxaat ñibbisi xana mool yi wala jën yi ngeen di daq xam nga mais ñëw dugg ci biir nit ñi nek fi de bokk ko xaar yi koñ bi am ay chrétien am ay xaar am ay leneen ak leneen am ñu tamit ki ku nek tok ñi di nalaw am ñu feebar am ñu ëmb am ki ku nek am sa problème bok gaay yi ngeen ñew ne force ci biir nit ñi te nak koñ bi ci penc bi la xol xool bi jàkkaarloo ko affaire bi 4.4 point nek vous allez emmerder par force bu ko mbubo yalla ah dafa yomb waa yàlla waxu leen loolu yàlla bañ na ko ba xolal julli guddi yi sax dañuy wàccee baat yi ak heure yu ñuy yëkkati baatee ak heure am na partie yu ñuy naa am nu ñu koy tegee mais ku si nekk ak am na am ne sooy julli heure yu ñuy julli sax du ñuy mën ngaa yëkkati heure yooyu julli mais da ngay koy dem si suuf heure yoo xam ne sa xolal mooy lool yéen dara méttiwul mais yéen ngeen ne di ngeen ko métti fukk man man nee naa leen cent ans dimanche bu ma mënul bàyyi ak bu may toujours di laajte di poser la question mais weñ bu ndaw bi lu c'est se faire à cheval que j'ai jamais compris son sens dans c'est parce que ce bruit ne m'a jamais dit je ne comprends pas keteng keteng bi boobu weñ boobu non. keng kereng ke boo léegi la si man parce que boobu dafa may de dama de dégg sa que dugg sa ba pare nga war koo dégg huit heures de temps d'affilée keng keng keng keng keng keng keng keng keng boo en tout cas daal wax bi moom eh, doy na waar quoi doy na waar mais lu wóor ba wóor moom mooy sama mbokk ñuuxiti yeewaat leen seen bopp waay yee leen seen xel xoolaat leen seen bopp parce que am na solo nekk leen nit nekk leen nit parce que lu ngeen di defendre défendre ko ak ay principe ay base yu solide Y'a naa mo ëpp que diko ko défendre ay saga ki yuuxu khataray parce que encore une énième fois seeni xataraayoo ki seni saga ki seni yuuxu franchement safunu safunu wunu seeni kia ak yoy ngeen di wax parce que mëno leen xataraay lu nu jaaxal mëno leen yuux lu nu jaaxal xam nga tay ji ni soy saf wala ngay safle wala ngay ki da ngay safle ko mëna safal tay ji ni su nekkoon yéen yeneen yuy safal sax tay ji ni ngeen mëna def lu nu saf mais tay lu saf si yeen ñoo ko safal moo tax kon ma koy waxee rek mënoo leen fay tëb tay ji ni yuuxu wax ba kii ni ba ngeen am lu ngeen nu jaay mu su nekkee diine ngeen ñuy jaay seen diine boobu ngeen di woote ñoo ko safal si islaam lay basé wu islam boobu lay jéem a woote si loolu lay mbuboo si loolu lay kii donc ñun les musulmans am que gëm neen alquran en tant que eh, gëm yàlla si lu mu doon ñoo ko saxal su nekkee ceeb bu neex ngeen di wax walla ay lu naan jus bu neex wala leneen ki nangam ñoo ko safal cant yu safak leneen ak magal bu saf ñoko safa lepp suñu poche lay jugge si ñun gënë ñew ñëw seen yi keul di maajaal ñu bëgg ko tollu neen ci fo xamne ñu bëgg ko ñu bañ ko sax du ñu jël ci suñu xaaliss legi di leen ko jox donc encore une fois ñun du no bëgg tay su ngeen ñuy ñew ba di ñu wax wala ngeen nuy tontu wala di nu expliquer wala di am lu ngeen di défendre wala di wax ngeen koy wax ak ay action yu concret ngeen koy wax ci lo xamne ni ke ku nek dina ci gis bopam te lu nuy gis la du pas ay mbacc mbacc ki nek fi di solo nit ñi di wax te de te te te de grâce dimbali nu ak mak neena nee na ci si benn mak jang na si benn mak mak bo yak mak yooyu nonu dimbali len ci ñom quoi encore une fois dimbali leen si ñooñu quoi mak yoy bay len fu ñu toog bàyyi leen mu magoo seen mag waxuñu lool mak bu len wax yeen la ko wax lutax du ko ñëw wax ak mak ban la mak kan kan bobu moy kan il est qui mak rek ni laissez ça mak neena man sa baay nee na tamit point bobo gën wor ku xamu sa bay di ko wëñ kombok esa gi ni jang len di ñew argumenter sen bop si xam-xam mo gën gën di jema ñew di argumenter sen bop si rewande, ak saga fi ni kep fu ñew di jema saga oleh wala di jema tek oleh wala di jema wax ñun am tek, lu nu wah, am nen lu nu wax mën na wax lu nuy wax mais est encore de grâce seen kilifa diine yooyu noonu seen maa ngi naan kilifa seen kilifoo diine yooyu suñu bañee kii nu waxati ci ñom. nañ commencé def yëfu nit nañ commencé def yëfu julit. nañ commencé respecter yoon ñom bu ñuy woté ben. ñaar suñu bañee encore kuy wax si ñoom nañ bàyyi woote tarixa parce que ku woote waxuma la tarixa de loo munti woote nu wax si yow Youssou Ndour woote na Iba Mar du ñuy wax si yuusu du ñuy wax si Choub du ñuy wax si kii ku woote du ñuy wax si yow ñoom nag ñoo ñëw taxaw woote loo xam ne àttanu ko duñ koy gérer mais mënuñu fay tere kenn daal di ne do wax ci li do wax ci ni wala lu ngay wax ni nga ko war waxe non non non non ñom dinañ nu déglu comme boog nag instant gi ni da ngeen defaraat sen togaay parce que su ngeen defarul sen togaay 2021 bi ni di ñew lii di nar a dal seen kaw moo nar a gën a metti lii di dal deux mille vingt parce que li leen dal deux mille vingt du jàmm mais lu leen nar a dal deux mille vingt et moo nar a gën a metti parce que léegi gars yi boole neen si ñàkk jom te xam nañ ni que claate neen ba pare maa tey leen si nar a doxee loolu nag maa leen ko wax. Tapha Gueye comme yaa ngi si jooy bi ba léegi oh, ma lu la metti lu la metti man teguma la ko lu la metti teguma la ko xam nga soo bokkee si soo bokkee si secte boo xam ne ni que secte bi mooy paccax paccax la ñuy doxee problème mu pax pax len am rimbax pax day am yo xamne ne koy def wala soo koy wax tamit comme numa ko waxe rek ni ku nek lu nga jang ngay tari lo jangul mo do don serignam donc démonstration euh, de guddule bi démonstration de goudoule bi wala de jondor dorbi, bi wala de vulgaire martat, wala wax ay affaire de coupe bi non non dang ka doonu de dang ka doonu de lu nga xam rek nga nga fi wax lu la jangal rek nga fi tari comme numa ko waxe lu len di wo ci xam xam wo len ci xalaat wo len ci wax bu sel ñew fasiyene sax nek nit mais yeen vous ne pouvez pas vous retenir parce que lu len jangal la dafa nek sen ADN lo depuis jamono ku ngeen wax ngeen top lo quoi motaxit nu ngeen tayo len ko su ngeen koy def du ngeen ko tay xam nga waaw su ngeen koy def moom du ngeen ko tey quoi loolu moom mënoo leen si dara c'est dans vos gènes moo tax euh, ñun daal du leen di ñaanal rek yal na seen xool sedd ba ngeen mën a dëf waaw ba ngeen mën a dëf comme ni ma ko waxee pendant temps boobu noonu yow yaa ngi jéem a lijjanti yaayu jàmbur wala di lijjanti yow nooy defee nooy tariyee nun la jàngal xam nga ku nekk moom loo jàng ngay tari la pendant ce temps du ngay xoolee nooy tariwee lu la jàngal si yow boobul xam ni que yow sa bos bu nga bàyyi kër ga elle est vulnérable am na tamit beneen kaña bu mel ni yow buy xool tamit fu muy tariwee luñ ko jàngal yaa ngi comprendre àdduna ah, gi noonu la de soo sëggee di yëndu taatu keneen wala di xencu ginnaawu keneen na nga bàyyee xel ni que tamit am na ku mën a sëgg sa ginnaaw tamit xencu sa ginnaaw hein noonu la demee nag comme nag yow pendant le temps bi yow yaa ngi lijjanti ak yooyu sa bos gaale est-ce que sûr na mooy loolu de comme nu nga koy waxee rek Nous, mom ñun danoo romb yoyu quoi ñun mom danoo nekk que moy si la leen wax extrait de naissance yi parce que ku bëgg bi jamono ji extrait de naissance yi xam nga euh, waxunu titre foncier de extrait de naissance Nous, de parce que vous avez fait beaucoup de naissances. lepp ça rapport c'est le moment de faire euh, re relever gars yi xoolaat ñaata nit am population bi ay affaire kii quoi yaa ma gën a xam yaa gis waaw parce que boobu ba léegi moom mooy lool mais suñu amoon ñaan moom ñaan moom pour ngeen wàññi pax mi pax mi moom wuu lu ma si jaaxal Mouride bëgg pax mais pax mi léegi sax da ngeen commencé mel ni di dóor si si kii bal perdu yi seen bëgg pax yi yéen a ngi commencé si bal perdu yi foo trou yi yéey la murit yi léegi ay cartouche blanc la ñuy dóor sax léegi lépp si bëgg pax dañoo bëgg pax dóor neen pax yëpp ba léegi di dóor à vide pax mooy genre cartouche blanc yooyu nag ko bruit rek lay def mooy góor jigéen yi maanaam lay lay la la murit yi faax plein léegi bàyyatoo leen dara lépp si kii léegi ngeen commencé tourner porno ak kii leneen lépp ñooy ànd de yéen kay moom xaar leen rek xam nga maa ngi leen koy waxaat encore fii maa bëgg waa Touba gars yi bàyyi xel léegi nu jàpp leen si zoophobie ku xam luy zoophobie léegi nga commencé leen say dégg léegi nen dem dina feeñ on rek on <laughs> te ce jour la nen dem yàlla nu fi yàlla bàyyi ak jàmm ak salaan non dina dina dinaa leen bett jour ak benn vidéo vidéo boobu dinaa leen ko bett zoophobie biir Sénégal bàyyi faal yi billaahi dinañ commencé laal xar yi bëy yeeg wala nag yi mbaam yi si ruq yi dina feeñ léegi téléphone partout les gars film ak i dina génn gars yi moo ne lu nu jàng leen tari loolu seen maam boobu leen ko tàmmee seen maam bi leen ko tàmmee moom la moo soo waxee loolu la nit lu soo leen waxee luy ñëw seen xel mooy taat mu sooy wax ak moom lu muy xool taat seen sëriñ su ñuy wax ak nit ñi taat noir fumé guddi bëccëg fu nekk pour xool taat sëriñ yi rek ngay gis ñoom rek ngay gis ñu toog sa xolal ay cant wala ay waxtaan surtout maa Mbàkke Mbàkke yi sol noir fumé plein guddi minuit minuit saa waay sol ay noir fumé ñaari option mandi wala taat ñaari option mandi wala taat Bass Abdou Khadre noir fumé chaque instant léegi la commencé di sol blanc blanc di so noir fumé so taat mandi te ñoom ñaar yëpp la parce que taat tat taat tat yeah ñaar yooyu ñooy ànd ñooy ànd ku mandi day bëgg taat soo demee auberge day ànd ak wa Modou Kara jabaram baa France di jaay tata ki sangara waaw 18e arrondissement yoro ya fa xolal ngandi auberge nandi tay yeb yëpp xam nañ fa tat baye faal soy wax mom tat lay xalat su xalatul nan mo ngi xalat tat tat rek mo nek sen bopi tat amunu xam-xam amunu xam-xam amunu xam-xam kat teñu fecc ñapaxu taat waxu saay-saay yëfu caga seen xel am ngeen problème moo tax it ngeen bëri raq de la même façon ngeen koy xalaatee kii seen pape yi tamit taat rek tamit topp si di taat rek yu bëri raq waaw seeni raq foroole leen de hmm. foroo ko daal foroo ko waaw sama petit frère yi leen ko de yéen kenn du leen compter du leen di foo disqualifié ni <laughs> nga jàll non non non ni nga jàll nee ma maay taat baax na de oui non taat kay lu baax la eh? mais xam nga su ëppee mooy loolu quoi moo lay yóbbee am ay 33 ay 40 ñii ay 98 ñii ay 60 wuurul après problème la utal benn boo moomal sa bopp ñaar à la rigueur waaye ñeenti ñett su mettee ba métti ñeenti soo dëgëree fi dëgg-bëgg problème xam nga. et après que nous avons que lii mooy loolu ouais su opé Mais monte moo tax ngay modérer consommer doucement modération quoi tout excès est nuisible mon frère l'excès est nuisible dans la vie tout est drogue tout excès peut te peut te nuire Montre tout ce que tu fais vas-y avec de la modération bëgg jigéen bu beuri sa dalay les plus grands rois ont été trahis par bëgg jigen. c'est pas qu'ils ont pas eu quelqu'un qui les aime mais par l'excès de femmes il y en a une qui a craqué c'était ça le problème après les femmes ne sont pas fidèles non mais parmi tu ne peux pas dire que tu vas avoir 33 fidèles tous pour toi il y aura toujours une qui va craquer et là ça part en couille parce que méfie-toi d'une femme qui craque même amunu doole biceps amunu kii mais xelu yàq bi nii xel te fe te foutre le bordel xel te faire souffrir tout si jigéen parce qu'elle va jouer de toute son innocence pour niquer ta race d'une de ces façons hein, que après même que tu te rends compte que ça sera trop tard ah, waaw waaw maanaam ni que jigéen moo mën a ëmb ba wasin sax te nit du xam ni que ëmb donc su duggee si yow ba génn si yow nga xam ni que <laughs> yow yow yow toogal foofu di fon am naa sam benn sam benn cousine genre jarbaat yooyu biir na si gaale gi ba bu muy ba bu muy wasin si la gars yi naan sama partenaire la nag ak a baax sama gaañ la koo kay gaañ nit waaye nit bu kuul nag nante mais benn doomaraam rek a xamoon lu xew si kër yi maay la premier doomaraam bu jëli ji action jël ki naan ñaax si yenn kii du ne ma da ngay fen kii maa ngi ko xool ma ne non y a quelque chose là moo tax après daf may xool naa ma yow yow vrai vrai doomu araab nga ko non santé que y a bu ñuy woo ko yóbbu hôpital rek nit ñi di xam ne que nekkate yoo kii tout ce temps mooy loolu nit ñi naan kañ nga fi kii nan nga fi moo toog si àll yi di leen rey naa leen eh, waxoon naa leen ko ngeen naan may c'est-à-dire ki ki nangam gaa yi naan laay la la ñee di daanu fee ñee di jooy ñee di xëm ma dem toog si ginnaaw fee man takk sama double bu dëgg taayoo gën a con di di leen xool di ree rek naa ay ah voilà <laughs> yéenay di kookoole non ah mooy yëfu koo rek kii ndeysaan sama partenaire la nag mon gars ok moom ana ko yàlla dimbali quoi je la souhaite tout le bonheur borom baax dëggantaan xol bi dara neew si comme bok sama gaay ma yemale len ko fi nu def noonu ba ci benen waxtaan ni ñëw dajoo comme nu ngi koy defee saa su nek rek waxtaan wax suñu nakar ñaxtu xamal ni nit ñi tamit ni que on est toujours là que l'affaire n'est pas encore tombée que ñoo ngi topp tamit suñuy kaas que dorénavant bëgg nañ am dëkk bu changé dëkk bu soppeeku dëkk bu tane lu ñu fa bàyyi que fas yéene nen si continuer fas yéene nen si jàpp fas yéene nen see góorgóorlu ba lu nu si yàlla jox nu jël xeebu nu si dara mais xam nañ ni si xam nañ ni que yàlla dina nu si fay moo tax taxit dinañ si góor góorlu parce que suñu intérêt la mais pas seulement suñu intérêt mais intéret wu suñu futur mooy suñuy doom suñuy sët nu bañ a dund ñun lii nu dund ñoom suñu ñëwee nu mën a tekki si biir dëkk bi di génn si dëkk bi di tukki comme en tant que vacances immigré am dund gu si biir dëkk bi ñun lu nu xeexalul ñun lu nu jotul a am ñoom suñu ñëwee nu mën koo am moo tax lii lu mënut a ñàkk la

mënunoo bañ Sénégal ku ne nee naa leen fii ku toog wax ba daal di ne am na activiste laa lay wax ak suñuy différence bu nu munti am suñu teem ak suñu taxawaay position bu nu munti am man loolu li lii may wax ni lu ma gëm la intérieurement ci sama xol amul activiste amul kenn kuy suivre ci live yi di topp di partager ki di suivre di nekk ci mooy ñu nga xam ni que mën naa leen tax ay activiste leen mais à leur manière parce que daa am ñuy wax am ñuy partager am ñoo xam ne ils sont là aussi suñ fi nekkuloon sens du am si wax gi ñu ñëpp confondu amul kenn ku suy taxaw sañ a taxaw daa di ne ni que bëggul Sénégal loolu lu ñuy exclure la lépp lu nu munti def si action si ginnaaw xeex bii nii que ça soit sax ñu may saaga ñoom du ñuy jàpp ni que seen xel si ginnaaw bëgg Sénégal la donc on retrouve toujours dans le même point Moi, que nous am Sénégal donc Sénégal nous avons di ni que mérite plus que ça mérite plus que ça et il peut avoir plus que ça parce que nous avons des intellectuels Sénégal

àndaaleel pressé yaa teg boolu ceebu ganaar wala boolu ceebu yàpp lëwal deuxième bu baax bu wala tegu Baye Fall balaa ngeen di pare di nga comprendre comment le pays nga xam ni que ñii xam na lu xew lépp leen nii leen koy waxee mais ñemew nu koo wax si kaw parce que daa am lu nu xoqatal du noo tiital napp nu jël suñuy fit yi teg nu si benn affaire ba pare xoolal napp nu ba nga xam ni que ñemew noo wax soo waxee sa ne la ey lu nga wax rëy na ey yow Mais Sénégal mérite plus que ça, peut avoir plus que ça. Abonnez-vous à la scène qui vous ressemble et qui vous correspond. Vision, l'œil du delta du salon